شكرا تجد ذلك عند الله وخيرا وأعظم أجرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين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 واغفر محفظ المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهلك من كان في هلاكه رعاة المسلمين ودمر اعداء الدين واجعل اعوانهم وذراريهم غنيمه للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد وبلاد المسلمين عامة وربنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والقرية واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك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 وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود عني لذات الوقود ثم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد للذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل تيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ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 والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الصاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تولى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع ولد ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل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 asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah إنك لن ينفع فلا تكن الصلاة لنا منك من عجل than else.

ñëpp bu ñu woo bu ñu woo bu ñu ci réew ñëpp sonn na yàlla yàlla yàlla ma yàlla yàlla benn masala bi mooy xeeru daal di koy mooy suñu sëriñ benn bi ñu naan wàllu laaj bi teelul waaye dañ mu ngoon kenn ku nekk jëm ñu fekk ñu kër gi saaya dañu wax di ko laaj dañ ko ngoon dañ ko ngoon kenn ku nekk ñu war a am yëpp ku nekk dañ ko ñëw dañu ñëw ko ci saaya na boo delluwaatee ñu laaj ko loolu lu xool kon jàkkee ji la waaye maa ngi koy yàlla des na waaye maa ngi koy baal dinañ ko baal baal naa ko waaye ñàkk yi yëngu waaw bu yëngu ko muy dem dañ koy baal loolu rek laay ci ba léegi ak itam waxtaan ci wàllu tëddinu jàkk ak dégg rôle bi jàkkee yu joué ci koñ ab ak ak ak orma bi ñu ko war a jox ak yu mel noonu fa lañ jógee léegi ñoom ñu ñëw nag jaar fii fa tabarakallah fekkee jumaa ji hmm. ñu jël xutba a di hmm. njëkkati mais dañuy ñaan ci barke man sos jàkk ci dara ji rasulillahi salaa sallam euh, jàkk ji fa tabarakallah nga xam ni mu ngi amee nii nga gis ci ñaanu man ak seen taxawaay ba ak véhicule euh, bi nga xamee ni ndaw ñi leen wuutu ñu ngi koy jiima doxal te mooy bu jiima ànd ngir yàlla yàlla ci yàlla saxal bokk liggéeyal yàlla bokk di liggéeyal Rasulullah yàlla ci yàlla saxal loolu moo waral lii yàlla may ñoom itam yàlla yàlla may leen kenn bañ a màgg fa tabarakallah ñu ngi leen di yéenaloo suñu waa jàkk ji man ñi ba ci imam Assane ba ci ñun ñu topp ci gannaawam ak euh, waa jàkk yëpp ñu ngi di wax ni euh, di courage continuer leen seen yoon incha allah dina baax puisque lu mel nii duñ koy tàmbali jëkk tëbuñu tëb am financement bi dañu ni ñu toogee di projet dara di xaar ku ñu financé duñ ko am. nañu tàmbali ci suñu mooy bopp. ñu mhm. ne kenn ku ne sax nañ ci cinq mille francs ci loolu tàmbali. commencé di sàmm oto yi jënd ci ci. Eh. dafay yàlla dogal lii nga am. moo tax yéen itam bu ngeen defee noonu rek. yàlla léegi ñëw incha allah te yàlla léegi yàlla gaaw a ñëw. yàlla na gaaw a sotti. te yàlla na mel ni ngeen ko bëggee ni ko ñëpp bëgg fa tabaraka loolu dafa jaamu yàlla nag. ndax jaaxle bi historique la. Mhm. ndax ñaari wax am na ci. ñii nee nañ maam laaj maa ngi def rëdd mën na ne hmm. ñii nee nañ maam laaj maa ngi def kon ñaar yëpp baax kon yëpp dëggu na kon jàkkal a bàyyi ko sant bi mooy maam Mbacke ji ba mu fi ñëw boobu Sébikotane xam ne bu laaj moom nga njëkk ubbi daara njëkk a samp jàkka maam Mbacke ji fii nangu jox euh, gaañu ci sonaar ba mu daan la daara gi tas maam Mbacke di ñëw ba euh, dëkk bi jëm ñaajo mu installé ko fi quelque moment loolu ñëw si waxtaan mu am fa fa la amee jàkk jooju ak kër dem fa amoon ak daara jàng kër waaw kon loolu yàlla ko yàlla barke waaw kon loolu lañ koy sant incha allah fa tabaar di sant yooyu tam di sant waa télévision ba soo ko tàmbalee ci kaw ba ci suuf yàlla loolu leen di ñaanal aussi yàlla yàlla barke si waaye barkeel liggéeyu suñu télévision ñun itam. Mhm. muy Asfiya. Asfiya te télévision la bu exemplaire. macha allah wax dëgg yàlla ñu ngi doxal liggéey am solo. Mhm. ci wàllu diine ji ak wàllu kër gi. Mhm. kon yàlla yàlla jàppale télévision yëpp. muy liggéey ci wàllu diine. liggéey bi ngeen di def. waaw ah, yow ñu ngi lay gërëm. sa déplacement day na ci ñun. mais aussi bu métti li xew démb. Mm. wala tay mm. loolu moom amul benn euh, kii ci loolu mm. euh, xaj ma yàlla wax dëgg yàlla jàpp nañ ñu rek lu jot yomb te tey ji la fa yàlla yàlla nay li gën nag allahumma amiin yàlla nay li gën yàlla moom def man hasard waaw tabaraka kon loolu rek la kàddu yaa ngi doon wax di leen ko teertoo waaye di ko ñaanal suñu mbokk yi wàkka yi kaw daal di yàlla defal leen euh, sa tura waaye moo tax leen seen liggéey amiin bi jaay